Sénégal ku ne dégg nga aja Abi création lu ngeen jàppoon bàyyi leen ko kii mooy spécialiste su cuub ci mim réew képp ku bëgg cuub dëgg dëgg dëgg ak cuub yu bees yi génn gis ngeen cuub Instagram de <laughs> cuub Instagram mooy cuub bu bees bi génn gis ngeen cuub Twitter de ah est-ce que gis ngeen cuub Marème bi waaw waaw ah dama ni cuub VIP plus génn na ñëw leen gaaw fii nga xam ni moom moo di ca Abi création Adja Abi mi ngi nekk fii ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba maanaam ci tali HLM bi janoo ak église bi boo ñëwee ba fi nga xam ni moom la ñuy wax Baye Gaynde bu dee yaa ngi jóge marché HLM xoolal sa gauche jéggil tali bi wàccil ci église bi te jéggi tali bi bu dee yaa ngi jóge Castor boo ñëwee ba église ba maanaam ba Baye Gaynde wàccil daal di dugg ci sa droite bi nga gis loolu nga xam ni moom moo di abi création abi création nag cuub mooy spécialité am gaa am na bazin waaye la muy cuub musukoro ba ca gaaru ba Bamako xam na ni cuub dëgg yaa ngi koy fekk ca Adja abi fii ci Ndakaaru wala nga woo ko ci 77 537 68 07 77 537 68 07 wala 33 824 29 50 xool ko ci Facebook Adja Abi rek la muy cuub amul fenn ci àdduna waaw woo ko ci 77 537 68 07 wala 33 824 29 50 Adja Abi la ngay cuub Adja Abi ay <laughs> Adja Abi li ci cuub. dal leen jàmm ci xibaar yi bokk na ci lu ci gën a fës lu tukkee ci mbas mi doom yaa aadama ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk juróom benn la ñu saytu fukk benn ñoo jàngoro jàngoroy coronavirus kenn la ñu ca wàll fukki nit xamuñu ku leen wàll ñeen fukk wér nañu juróom benn ñoo sonn lool kenn ñàkkul bakkanam ci lim bi nga xam ne biral nañu ko ni tey ci alxemis gi lu la trafic de passeport diplomatique yuy coy waa assemblée nationale beneen ancien ministre Macky Sall feeñ na ca ci anam wu doy waar fukki at benn moo doon tëddee ay mala gannaaw bu leen uh, sàccaan ba noppi uh, beneen gune gu am fukki at ak juróom benn moo sàcc na waa gox ba mu dëkk ngir am payoor gu muy tëddee ay uh, jigéen Serigne Saliou Ndiourou la doomi Cheikh Béthio Thioune nangul na soxna yi Aïda Diallo cër ba mu féete ci ñoom a tàggat yaram la ñu koy tëjee ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ngeen taxilu tuuti bàkk ba jip ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree tey nag si alxames gi junni doomi aadama ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn la ñu saytu fukk ak benn ñoo sàmmee jàngoro ji kenn la ñu ca wàll fukki nit xamuñu ku leen wàll ñeen fukk wér nañu juróom benn ñoo sonn lool waaye kenn ñàkkul bakkanam ci li mi nga xam ne ministère de la santé et de l'action baaxee nañu ko réseau diplomatique baa ngay woyal yoonam gannaaw ñaari député yi ñu ca njëkkoon tudd ak coowal góor jigéen gi si wàccaat duut nañu baaraam benn si ña fi nekkoon ministre njiitu réew mi Macky Sall moom mi daal da doon jëflanteeg benn jet setteuse niki noonu nag mu jox ko passeport diplomatique ngir seen gisante bi ci réew gën a yomb jamono ji nag ma nga joxante waat ndaje ak ndaw si ngir mu delloo ko passeport diplomatique bi laataa ñu koy def ni ay moromam jet setteuse bi nag koppar gu takku la ko ko fuuxal ni dina seen seeni ah, mbir ah, ñoom ñaar Tange Tandian mooy ah, tontu Ousmane Tounkara te koy dut baaraam ni sàcc la ndax sàcckatu woto la te itam fenkat la na mu ko dippee di mbaam xuux ak ay saaga yu doy waar yu mu ca teg Tange di ko yoole ci message mu kay yónnee xabaar waa mu ñaan ko tur moom Tange naka neen Ousmane Tounkara soskat la ndax day defay live di tudd ay turu nit te du leen a xamal dara teg si naan yaay Tounkara daf ni ko suma la njëkkoon xam yaay orange nee na lijjantiwu ko waaye moom moo koy lijjanti da koo fan ba di wax nañ ko photo ak moom la mu ca teg daal ëpp naa jottali mu Gueye ab ouvrier la boo am ñaar fukki at benn dañu ko taxawal talaata gi ca kanamu tribunal d'instance bu Louga di ko toppee vol ca kanamu àttekat ba nag xamle na fa ni bés bi yëfi di am da doon taxawaalu ci mbedd Louga yi ba dajek benn bëy mu tàmbali di ko dàkkee bi mu ko jàppee mu dugal eh, morceau si gémmiñ gi laata mu yóbbu ci benn salle ko fay koy bàyyi dem yoonam a mu ñeekoo tëb mur bi euh, fekkaatu fa bëy bi mu daal jël meram bi yëpp nag sipi ay xale yu doon football foofule ay nit yu doon romb ñoo dimbali xale yi ba noppi woo takk der ya ñu jàpp ko Moussa di wéy di xam ni dafa tëj bëy bi ci salle de classe bi ngir euh, sëy ak moom te lu mu yàgg a def la atekat ba nag tëj na ko weeru yàlla bu muy euh, tëdd source a moo xëy ak ñun tey di ñu yëgal ni Bara bu parti démocratique sénégalais PDS bokk ci kuréelu kujje gi di yeewi askan wi ngir lu ñeel élection yu ñu jëm bu nu sukkandikoo ba tey ci journal bi lu ni mel a ngi bawoo ci ay négociation diggante meeru yëmbal sud bi ak waa kuréelu kujje gi nga xam ni Ousmane Sonko ak xalifa Sall ñoo nekk ca bopp ba décision bi ña ngi ko war a siiwal juróom-ñeenteeli fan ci weer wi ñu dugg fukki at juróom-benn la am daal di sàcc nattu jula bi di Aïssatou Sissoko koppar ga toll ci juróom-ñetti fukki ay doxkatu guddi mën a nekk ak ñoom Aysatu daal ab tiitaange gu rëy la àndal ba mu gisutee kopparu nattu gox ba mu nekk di Bakel carte d'identité am ak passeport am ba mu boole woon a def ci uh, suufu njegenaayam naka lay wëree ba yegg ci borom butigu koñ bi mu xamal ko ni gis na gune gi mu yor passeport bi ak pièce d'identité bi niki noonu mu daal di déposer plainte ca brigade de gendarmerie ba bi ñu ko tegee loxo moom MK biral na ni moo jël koppar ga teg si naa ne dafa jubal ca doxkatu guddi ya ñoom ñi le sax la jox xaalis ba yépp daanaka ñooñee sax déglu nañu leen ñuy dëggal ni gune gi ñëw na fa ba tëdd ak ñaar ci ñoom ñu daal di koy defee replacé ko sous mandat de dépôt ca prison bu Tamba muy wéy di dëggal li mu def ca tribunal de mineurs ba noppi naan leen dafa sànni carte d'identité bi ak passeport ba ca wét ci benn boutique ci kanamu yaayam ma ko doon a jéem a setal ni xelam neexul Ceerno Bokku moom mooy biral ni Fatoumata Ndiaye da ko woo téléphone di ko duut baaraam ni njiitu réew mi Macky Sall moo ko teg ci loxoom moom Thierno daf ni woon dina porter plainte ndax tuuma ya ñuy teg ci ndoddam xamle na itam ne bi mu ko woowee di ko baalu ak moom ceex Thierno daf ni ko na janook askan wi weddi la mu waxoon laata muy dindi plainte bi bokkoon ci doomi Cheikh Béthio yi njëkkoon dal ci kaw soxna Aïda Diallo bi seen wayjur wa génnee àddina Serigne Saliou njurul fareeti na ci soxna si baayam ba woon ci ab vidéo bu mu ni nangu na cër ba soxna Aida am ah, ci ay kàddoom Cheikh Béthio dafa jëlu ci ëpp ci ay taalibeem bàyyee ko soxna Aida jàlloo lu ni mel nag nangu na ko li ko yitteel kay jamono ji ah, mooy njaboot gi dajaloo waat nekk benn ah, bànneexu am doom la ñuy ñaan ku nekk xam ko mbégtey neen la ñu nemmeeku ci xar kanamu canaar bu série infidèle moom ak soxnaam si si seen bësu ngénte doom jilee Dakar Buzz a ngi koy kontaane tey ñaanal prince jéey mu dund te am ndey ak baay benn waay bu jóge woon Touba la benn woto mbëkk ba mu mujjee ñàkk bakkanam eh, bu nu sukkandikoo ci nijaayam guddik dibeer jàppal ci ne la ko woto bi fël gannaaw ba mu dëgmalee woon pu yoon ngir dem Sinthiou ba Mambe ci département wu la région bu Matam eh, moom Abdoulaye Diallo yoroon na soxna ak ñaari doom ci njëlbéenu weer wi la ñëwoon Sénégal mbir maa ngi xew ba su màggal ca weti travaux yu eh, Dendudi nekk commune bu Ogo Cheikh Niass fanweeri at juróom-ñeent la Sahel moom nag dafa mujjee rek ñàkk bakkanam Cheikh dafa bawoo woon réewum France ñëw vacances fii ci Sénégal doon wàcc ngir dem Touba teewe ji màggal gi def na juróom-benni fànn ba ko takk der yu wàqi naan Nimzaat tegee loxo ca géejawaay boobee ñu doon ko jàpp nag coow dafa judd woon digganteem ak benn takk der ba ñu placé woon ko en garde à vue alxemes ni ñu ko RFM di xamale njiital mi Macky Sall ca conseil des ministres bu àllarba gi weesu amalaat na si ay coppite yu bees Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ingénieur commercial bu yàggul dara directeur général u marché central au poisson bu Pikine def nañu ko directeur général de la société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs Ibrahima Diagne ingénieur en génie civil spécialiste en gestion des déchets solides environnement ak développement durable def nañu ko directeur projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal et sciences humaines bu euh, de classe normale de la technologie bu université Gaston Berger euh, def nañu ko euh, titulaire de classe normale Ibou Sané enseignant chercheur ca UFR des lettres et sciences humaines bu université Gaston Berger def nañu ko titulaire de classe normale Ali Tandian enseignant chercheur ca UFR des lettres des sciences humaines bu euh, université Gaston Berger def nañu ko euh, professeur euh, titulaire de classe normale Fatou Diop itam enseignant chercheur ca UFR de lettres sciences humaines def nañu ko professeur titulaire de classe normale ñaaxarañu loo snap sa la ko yàlla mën loo ak itam ma jege loolu woykat bu mag bi di Wally Ballago Seck mooy biral ni dafay takk soxna lu ni mel nag sunu ay naataangooy taskatu xibaar daal di si yàdduwaat waaye nag ba tey ñaa waxuñu fan lépp lu ci wàccaat rek ci xibaar daañu leen ko toppal en attendant Dakar Buzz ngi koy ñaanal sëy bu barkeel naka rek moo daal di gane ci bi ba kenn ci membre Abiba musique yi daal di génn àddina lu ni mel nag wéykat bi moo ko tasaare muy xibaar bi ci ay kàddoom ma petite fée s'est envolée sama sele bu bu aljana rek ma princesse sama xel dal na ci yow di ko jaale toute sa famille ses amis ak la team Abiba musique on a perdu un membre une sœur une amie incroyable di seen ñaan fatiha plus onze lixlaas Dakar Buzz a ngi koy jaale xaritam boobu rek ni mu ko waxee te di ko jaale it bépp mbokkam di ko ñaanal yàlla xaare ko aljana Ismaïla Sarr bokk na ca ñañu nominé ngir prix joueur du mois EA Sport Premier League bu septembre gannaaw performance am yu mucc ayib ya donte équipe ma nga taxawee fukk ak ñaareeli place international sénégalais bi daal mi ngi ci forme ci njëlbeeni noonu toll ci ñaar fukki at ak ñett jot na am ñeenti bal ci juróom benni jongante dong gannaaw ba mu fekk jee Girondin yu Bordeaux ya ni jokkeeru mercato estival ba ñu di ko wanaleeg taskatu xibaar ya Mbaye Niang yëkkati na fa mbiru sélection bi attaquant bu beesu Girondin yi daal xelam a ngi ba tey ci euh, Sénégal ci ay kàddoom international la yoon la ma ci xalaat balaa ma wax waxi coupe du monde nag am na saison bu may xaar ci Girondin yu Bordeaux yi man nag ni am naa place si sélection bi ngir dugg fa faw nga performant xam nañu liy yoon man la war ma def sama liggéey ngir mën a dem mbokk yi li lañ la naan di loon tey ci xibaar dinañu leen ko doppalaat ci lu ci gën a fës fii ci Dakar Buzz yaa ngeen jëf